asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki jullit yi ñu ngi sant sunu borom tabaraka wa taala di julli ci yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal ñépp yàlla defal leen jàmm ci àdduna defal leen ko yowmal qiyaam defal ko mboolem jullit am na benn mbokk buy laaj ni dafa bëggoon ku ko tekkil aaya bi mooy wa man yattaqi llaha yajcal lahu maxraja wa yarzuqhu min xaytu laa yaxtasib wa man yatawakkal ala fa huwa xasbuh inna allaha baaligu amrihi qad jacala allahu li kulli cheyin qadra aaya bi mi ngi ci suratu talaaq waaye nag tàmbalee wut wa man yattaqi foofa fii ci digg aaya bi la nekk waaye it du benn laaya dong ñaar la muy aayab ñaareel ak ñetteel ci suratu talaaq aayab ñaareel bi mi ngi yem ci yaj'al lahu maxraja foofu la yem laaya ji ca topp tàmbalee wa yarzuquhu min xaytu la yaxtasibu continue waaye nag incha allah ñu tekkil ko rek fi mu tàmbalee wax ko li ci làmboo yépp ci gàttal incha allahu ta'ala fii yàlla day wax ni képp koo xam ni ragal na yàlla képp koo xam ni ragal na yàlla yàlla dana ko defal ak ubbee maanaam bu fekkee daa nekk ci ay xat-xat wala ci ay jafe-jafe ak ci lu mu mën a nekk ci problème mu àdduna rekk su àndeek ragal yàlla yàlla dana ko ci defal ak ubbee ba noppi nag yàlla dana ko wërsëgal wërsëg woo xam ni du xam sax fan lay jóge wërsëg woo xam ne du ko masoon a masu koo xalaat ci àdduna yàlla dina ko defal wërsëg woowu te it képp koo xam ni wakkiirlu na ci yàlla jël na ay mbiram yépp dénk borom bi tabaraka wa taala wakkiirlu ci yàlla ci mboolem xeetu wakkiirlu yépp nag nee na kooku de yàlla dana ko doy sëkk ci ay mboolemi mbiram àdduna ak yowmal qiyaam te it nañu xam ni yàlla ku matale ay mbiram la maanaam yàlla ku man la lu nekk rek yàlla mën na ko subhaanahu wa ay mbiram yéppit da ko def moom yàlla mu nekk dikk bu mu war a yem ak dig bu mu war a tàmbali ak nam war a toll yàlla moo man lépp ci tënk loolu mooy firi laaya ji waaye nag ragal yàlla gi yàlla di wax fii bokkut maanaam yëmut dong ci diw ab jullit la day julli day woor day saraxe day dimbale day joxe azakaak yu mel noonu waaye dafa làmboog mboolem xeetu ko ragal yàlla lépp lépp loo xam ni borom bi tabaraka wa taala digle na ko da cay nekk di def bépp sabab nag ngir man ko bu baax gën koo man waaye lépp lu yàlla xaraamal ci moom mu wattandiku ko daw ko di def bépp sabab pour bañ caa àgg maanaam ragal yàlla ci boppam loolu mooy loolu topp yàlla ca nam waree ca na ko yàlla waxee ak nam ko bëggee ci kàddoom mbaa ci kàddoog rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci mbooleem jëfam yi ndigalam yépp waaye daw ay tere borom bi tabaraka wa taala yi mu tere ci kàddu boppam mbaa yonent bi alayhi salaatu wasalaam tere ko ci kàddoom di ko daw nag di ko wattandiku bu baax di def bépp sabab pour bañ caa àgg loolu mooy ak ragal yàlla da xool tey misaal bi may joxe masalan buñ ni woon ah meesu meesu day xaraam na li tax ma njëkk a jël exemple ci meesu ki dugal laaj bi jigéen la masalan buñ nee meesu dafa xaraam maanaam jigéen juy jox ko karawam loolu dafa xaraam yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni yàlla rëbb na bépp jigéen buy jokk karawam ak ka ko koy jokkal ñu ne ko ah soxna si yow mii di meesu day yàlla xaraamal na mees moom mu ni ah man de xaw ko woon kon de bis ni tey banaa mees ak lu xeetoog mees dootuma ko jokkalu dootuma ko jokkale mu ba ko giirug dundam nag dootu ca delluwaat mu bàyyi ko ba faw lii mooy ak ragal yàlla waaye da dégg ñu naan ah ñun de buñ ko deful du ñu rafet looy def sa jëkkër bëgg ko nangam ak sàngam waaye lépp looy def sa jëkkër bëgg ko lu baax la waaye day fekk yàlla njëkk koo gërëm ba noppi yàlla bëgg ko ba noppi ak yonentam alayhi salaatu wassalaam beneen ba ci topp mooy léegoo-léeg nga dégg ñu ne la ah sëñ bi jox loxo jigéen day yàlla xaraamal na ko ak yonentam alayhi salaatu wassalaam nga dégg ka koy def bëggut koo bàyyi ni la ah loolu dara nekkul ci loolu dara nekkul ci li bon rek mooy nga bañ li li bon mooy nga bañ a xalaat soxna si ngay jox loxo bi am na ñoo xam ne bu ñuy jox loxo jigéen duñu xam sax góor la wala jigéen la loolu amul benn problème waaw kan moo wax loolu loolu ku ko wax teenoo yam fi yàlla yam ak yonente bi alayhi salaatu wassalaam yonente bi alayhi salaatu wassalaam moo ñu gën a maandu fopp gën ñoo ragal yàlla gën ñoo mën a téye boppam gën ñoo mën a sàmm boppam ci mboolam xeetu ñaawteef yi nga xam ni bu dee xalaat ni kii jigéen laam góor la moo ñu gën a màndu fopp moom moomu nag moo wax ni man de man day duma jox sama loxo bi jigéen yoo xam ni daganuma su fekkee yonente bi alayhi salaatu wasalaam mooy wax loolu keneen kum mën a doon ci àdduna ak noo mën a toll ni man de damay jox loxo jigéen ndax bu ma koy jox sax duma santiir góor laam jigéen la kooka ko koy wax de yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ko gënoon a maandu fopp gën koo ragal yàlla fopp gën koo mën a tee boppam waaye def ñu duma jox sama loxo bii jigéen kon ak ragal yàlla mooy lépp loo xam ni borom bi tabaraka wa taala tere na ko nga bàyyi ko daw ko di def bépp sabab pour bañ caa àgg waaye lépp lu yàlla digle nag ak lu mu jafe-jafe nga jéem koo def ca la nga man waaye di def ay sabab pour gën koo man nag ndax di ko jëfee ragal yàlla googu la yàlla di wax waaye boo soppee daganal boo soppat xaramal loolu taxut borom bi tabaraka wa taala di wax gis nga kii di sàcc su bàyyi woon sàcc ngir ragal yàlla wallaahi yàlla dina ko jox wërsëg woo xam ni dana ci mën a dund dana ci mën a tedd te dana am ngërëmal yàlla ba yowmal qiyaame moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci xadis bu wér boo xam ne ahmad moo ko soloo dafa waxoon ni innaka lan tadaa shay'an lillahi azza wa jalla illa badalaka allahu bihi maa huwa xayrun minhu nee na ko yow day doo bàyyi dara mukk ngir yàlla maanaam lépp loo xam ni bàyyi nga ko ngir yàlla masalan mèche day dafa xaraam jokk ko ak koy jokkale nga ne man de ci laa doon dund waaye nag comme que xaraam na banaa ko ngir yàlla nga bàyyi ko ngir ragal borom bi tabaraka wa taala yonent bi alayhi salaatu salaam nee na kon de faw yàlla dana la ko soppil lu ko gën bàyyi gi nga bàyyi yëf yii te nga ci daan tedd waaye danga nga ko bàyyi ngir ragal borom bi tabaraka wa taala yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla dina la ko soppil lu ko gën fopp loolu nag ragal yàlla dëgg moo ci àggale jullit bi mbokk mi masalan maa ngi jëf benn mbir di ci am sama teraanga di ci dundal sama njaboot di ci tedd waaye xaw ma ni woon lu xaraam la mais dem naa ba xam ba xam ni lu yàlla xaraamal la ak yonentam waaye nag ma bàyyi ko donte duma am lu ma añee tey waaye banaa ko ngir ragal yàlla garanti bi ci yonent bi la jóge mbokk mi yonent bi nee na yàlla dina la ko soppil lu ko gën loolu loolu la borom bi tabaraka wa taala wax yàlla wax na ci alquran ni alaysa allahu bi kaafin abdahu booba yonent bi la doon wax mu ni xanaa nekkul li yàlla doy na sëkk yonentam bi di jaamam xoolal pexe yi yéefari doon def ngir faagaagal rasulullah ngir xoñoñal ko ngir di ko sabooteeg lu ne mel waaye nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam wakkirlu ci yàlla rek dénk ay mbiram yépp yàlla xoolal yàlla ni mu ko xettalee ni ko yàlla dimbale moo tax kii di wakkirlu ci yàlla ànd ak ragal yàlla yàlla koy dimbale ci bépp boor doy ko ci ay mbiram àdduna ak alaaxira loolu mooy ragal yàlla te ragal yàlla sax nag yi mu dong ci yàlla ubbil la ay buntu xéewal ak i buntu wërsëg te nañu bàyyi xel mbokk yi ñun ñëpp bu ñu xëyee dañuy daw uti wërsëg di wuti xéewal gu ñu mën a dundalee sunu njaboot jafe-jafe yi bari lool ci jamono ji xat-xat yi bari lool waaye nag borom bi garanti la benn garanti bu am solo mooy ku ragal yàlla yàlla defal ko ak ubbee yàlla wërsëgal ko wërsëg wu yaatu woo xam ni mësul xalaat ni dana ko am bu wakkeeloo ci yàlla yàlla doy ko sëkk ci ay mbiram àdduna ak alaaxira moo tax abu dharrin alxifaari yi yàlla na ko yàlla gërëm nee na aaya bi dong bu ko nit ñi déggoon yem ci dana doy sëkk ngir ñu am xéewal aaya bi dong bu ñu ko déggoon yem ca di ko jëfee na ko yàlla bëggee ak yonentam kon danañu doy sëkk ci mboolem suñuy mbir yi àdduna ak alaaxira wax naa la sànq ragal yàlla du dong yàlla dalay defal wërsëg waaye dalay jéggal sax say bàkkaar ak say ñaawteef ndax yàlla wax na ci alquran ni yaa ayuha alladina aamanu in tattaqullaha yajcal lakum furqaana wa yukaffir ankum sayiaatikum wa yaxfir lakum wallahu dul fadli alazim yàlla mu ne yéen ñi gëm yàlla su fekkee da ngeen ragal yàlla ragal yàlla gi nag mooy topp yàlla ca nam waree waaye nag daw tere yàlla ca nam waree nee na su ngeen ko defee yàlla defal leen ak yomb-yomb ci mbooleem seeni mbir yi jafe yàlla defal leen ay xéewal ci mbooleem seeni mbir yépp ba noppi fompal leen seeni ñaawteef seeni bàkkaar yépp yàlla fompal leen ko bal leen ko ba noppi suturaal leen ca nag suturaal leen ca te lu leen ci topp dara bu yowmal qiyaamee te da xam ne yàlla mooy borom xéewal mooy borom yi ngëneel yu kawe ya moo koy jox ku ko neex ci ñi nangoo jëfe ay ndigalam ba noppi di daw ay tereem loolu la borom bi tabaraka wa taala wax waaye nag sunu jamono ji léegoo nga ni jëf sàngam day xaraam na ñu wutal ko ay lay teg ni suñ ko bàyyee duñu am nangam suñ ko defee nangam ak sàngam ut ay lay teg fekk la yee ñu teg dara du ci dëgg topp seen baneexu bakkan dong moo tax bépp lay bu waay di teg jógewul ci alquran jógewul ci sunna booba lay moom dëgërut fam taxaw dëgërut kon képp kuy wut lay ca la ngay def wut ko ci alquranul karim ci xadisu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax lépp lu dagan te baax yàlla jàngale na ko ci téere bii mbaa yonent bi alayhi salaatu jàngale ko teg ñu ciw yoon ni lii baax lii dagan lii xaraam waaye nag ñu baree baree baree bare ci ñun xoolatuñ li xaraam ak li dagan rawatina nag ci sunu ut li ñuy utee sunu am-am kenn xoolatul fu sa alal di jóge ñu bari ci ñun naa ko am rek la ñuy wax naa ko am rek fu mu jógee baax na nga dem a dem ba digg ñu naan la alal duñ ko liggéey waaye dañ koy lijjanti alal duñ ko liggéey waaye dañ koy lijjanti te lu bari lu ñu lijjanti du dëppook na ko yàlla bëggee ak yonentam alayhi salaatu wassalaam kon ragal yàlla faw mu am ci suñu jëf buñ bëggee yàlla wërsëgal ñu takkat bépp wërsëg boo am ci lu dul ak ragal yàlla day gaaw a dem day gaaw a jeex loolu yàlla wax na ko ci ay aaya yu bari bañ a guddal moo tax indiwuma aaya yu bari waaye ma indi benn aaya wala boog ñetti aaya mu am solo lool ñu war ko bàyyi xel yàlla di wax ni man yu kaana yuridu al aajilata ajjalna lahu fiha ma nashaau liman nurid ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا yàlla daf ni képp koo xam ni bëgg na gaawantu maanaam bëgg na àdduna ba mu gënal ko ci léppam maanaam xoolut li muy jëf ci ragal yàlla ci dara moom daal àdduna la jiital ci àllaaxira lim bëgg lépp mooy na na am rek ak nu mu ko amee baax na àdduna daal la jiital yàlla mu ni ku ko bëgg te seetoo dara ci li ngay def yàlla ak yonentam lu mu la ci wax ak luñ la ci tere ah yàlla mu ni ah waaw ñu ñu may ko lim bëgg rek ca la nga xam ni war na ko am ci lam bëgg te yàlla dogal ko ci moom dana ko am ba mu doyal sëkk dana am de moo tax ñi nekk ci lu yàlla xaraamal danañ am xéewal faw ñu am ko ñu koy am sax yàlla mu ñu dañ leen ko jox danañ ko am ba mu doy sëkk waaye nag danañu def jëhannama muy tàbbiwaayam ëllëg mu nekk ku ñu yedd nekk ku ñu dàq ci yërmande borom bi tabaraka wa kon ki nekk ci lu yàlla gërëmul ak yonentam di ca tedd na bàyyi xel lii bu baax képp kuy jëf di liggéey sóoraale la ngay jëf yàlla lam la ca wax ak yonentam alayhi salaatu wassalaam waaye nag yàlla teg ca ni waaye de wa man araada al axirata wa saa laha wa huwa muminun waaye nag képp koo xam ne dafa jiital yowm al dafa jiital alaaxira maanaam la muy jëf dafa xool la ci yàlla digal mu ko cay def la ci yàlla tere mu di ko bàyyi sóoraale lool yàlla ak yonentam ci li muy jëf lépp jiital alaaxiraam xam ni ëllëg dana dekki taxaw ci kanamu yàlla mu laaj ko ay jëfam yàlla mu ni ku ko jiital ba noppi nag dox dox ba maanaam dox jëm ca masalan ñëpp gëm nañ ni yowmal qiyaam am na jullit ñu baree baree bari ñëpp gëm nañ ni yowmal qiyaam am na waaye est-ce que ñu ngi dox dox boobu est-ce que ñu ngi dox doxiinu ëllëg daañ dekki taxaw ci kanamu yàlla képp kuy dox doxiinu ëllëg di nga taxaw ci kanamu yàlla mu laaj la mbooleem say jëf fu sa dërëm jóge fu sa alal jóge fu sa am am jógee loo doon jëf képp ku koy dox jàppal yaa ngi dox ci ngërëmal yàlla waaye nag est-ce que ñu ngi cay dox loolu laaj la boo xam ne ku nekk yaa koy tontul sa bopp mbokkum jullit moo tax yàlla daf nii fa ulaika kaana saayuhum mashkura ñu day seen dox seeni jëf lu ñu gërëm la lu ñu sant la lu ñu bëgg la yàlla muy danaa leen ko dencal ba yowmal qiyaam ma fay leen ko te ba noppi nag liñ war a am ci àdduna dañ ko am danañ am wërsëg daañ am xéewal maanaam jaamu yàlla téréwulaa am xéewal te sax nag xéewal gu mat sëkk ak wërsëg ci jaamu yàlla rek ci la nekk yàlla nag ni kullan kullan numiddu haulaai wa haulaai min ataai rabbik kenn ku ci nekk nag ci ñi gëm yàlla ak ñi ko gëmut ñi jiital àdduna ak ñi jiital alaaxira ñépp ku ci nekk langa war a am borom bi dana la ko jox dana la ko jox ndax wërsëg ci yàlla dong lay jógee nag wa ma kaana ataau rabbika mahduraa ndax kat wërsëgu yàlla ji kenn mënu koo xañ kenn jullit bi mënul koo xañ ki gëmut yàlla ki gëmut yàlla mënu koo xañ ki gëm yàlla ki jiital àdduna mënut a xañ wërsëg ki jiital alaaxira ki jiital alaaxira it mënu koo xañ ki jiital àdduna kon ku nekk sa wërsëg ci borom bi tabaraka wa taala lay jóge waaye nag ki nga xam ni bàyyi na mbir mii ngir ragal borom bi tabaraka wa taala bum tiit bum jàq bum ragal borom bi dana ko jox lu ko gën fopp ba noppi wërsëgal ko defal ko ay ubbee yu mësut xalaat loolu moo wund aaya bi nga xam ne moom la soxna si dugal firi bi gudd na lool nag waaye ci tënk rek mooy loolu li ma bëggoon ñu bàyyi ko xel mooy ak ragal yàlla yëmut dong ci julleek woor ak yu ne mel waaye nag dangay xool mbooleem lu yàlla xaraamal ci yow nga bàyyi ko daw ko def bépp sabab boo xam ne day tax doo ci àgg waaye lu yàlla leen nga jëf ko ak nu mu metti metti la ca man nga jëf ko waaye bul sopp mukk ni dagan na waaye bul ñàkk man ni daganut loolu mooy euh, aaya bi soxna si dugal di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu jëggal ñu mbooleem sunuy bàkkaar ak sunuy njuumte waaye nangul ñu mbooleem sunuy jaamu yàlla defal nu jàmmi àdduna ak jàmmi yowmal qiyaam defal ko mbooleem jullit wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.